aywa un jour au Sénégal un jour dans le monde bis ni tey yam ak fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru janvier ñuy fàttaliku la xewoon ci atum 1998 direction euh, bu administration pénitentiaire jóge woon euh, ca euh, ministère de l' intérieur daal di dem suma ma waa noon la ca ministère de la justice li ñuy fàttaliku tey Fatou Kiné Deme lañ ci àndal. góolu Sénégal bi di Edouard Mendy fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru janvier 2021 ci lañu ko def góol bu gën a xarañ ci àdduna bi ci atum 2021 FIFA nag sargal ko mu jiitu woon italien bi di Donnarumma ak doomi almaañ ji di Manuel Neuer Mendy jamono jooju mu gagné woon Ligue des champions ak clubam di Chelsea ci jamono jooju tamit ba tey moom Mendy wane boppam bu baax a baax ndax lu ko jiitu nag mi ngi jëloon ñaareelu place bi ci trophée boobu ñu duppee woon trophée Yachine Donnarumma jiitu woon ko te magazine France Football daal di fësaloon lu ni ci weeru novembre boobu weesu. fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru janvier 1961 ci la faatu moom Patrice Lumumba ñu rey ko. ca boori Elisabethville euh, ca Katanga mu nekkoon homme d'état nekkoon njiitu jëwriñ ca république démocratique euh, du Congo ci atum 1960 ba 1964 mu nekkoon tamit ak ka ñu doon wax Kaza euh, Vuvu nekkoon ku ñu ràññee lool ci ñi xeex ba Congo belge moomoon boppam. opération tempête boobu ñu duppee woon tempête du désert. fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru janvier 1991 la ñu ko amaloon mu nekkoon ay opération yu ay soldat defoon ngir nag xeex Irak fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru janvier ba ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru février 1991 opération yooyu nag ab coalition internationale moom moo ko jiite woon euh, ci ndigaluk États-Unis waaye mbootaay xeet yi opération yooyu moo dakkaloon doole gi Irak doon jaay Koweït tey ñuy taxaw ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru janvier 1998 ak direction de l'administration pénitentiaire keroog nag bi mu jógee eh, ci ministère bi ñu denk biir réew mi ngir nag bootu ci ministère bi ñu dénk wàllu yoon Beydi si agent pénitentiaire la bu à traité nekkoon itamit chef de la cave bu parquet mooy jël siwaat euh, ci ngëneel yi coppite googu amoon waaye it li ñu ci nemmeeku woon ci jafe-jafe. en 1998 ah euh, ñu yóbbu ñu ministère de la justice bi ñu yóbboo ministère de la justice amoon nañu yaakaar boo xam ne bii vraiment ne au moins comme ñun ñoo ñun ñooy liggéey ensemble dinañ am au moins dinañu jox benn benn yëg-yëg. c'est-à-dire jël suñu suñu suñu suñu cadre parce que formé nañu ak ay cadre supérieur bu ñu amee ay cadre supérieur nag loolu kooku normalement waroon nañu mën a jël foofu ñu commandé corps bi parce que ñoom ñoo xam corps bi ñoo ko jàng léegi bu ñu jëlee bu jëlee ñeneen indi ko ci corps bi la beneen affaire lay doon loolu moom mooy moom mooy frustration bi donc euh, je pense que ni euh, loolu c'est le ressort de la euh, du du euh, de l'administration générale en quelque sorte du de la république ñun critiqué wuñu ministre ñu benn ministre critiqué wuñu ko parce que du seen kii donc ñu président de la république moom moo koy moo ko war a def moo war a nommer un inspecteur euh, ñi nga xam ne bi moom mooy yem ak grade ak ñi nga xam ne ñu ñoom ñoom ñoo ñu commandé donc kon kooku c'est une frustration départ ba sax dañu jël benn colonel lañ jël bo booba colonel suñu inspecteur yi sax ñoo leen gënoon a gradé donc c'est ils sont rectifiés dañ ko rectifié après def jël nommé ko beneen grade ba nga xam ne bi mu mën a tolloog suñu gars yi donc loolu moom mooy frustration bi pense que ni ah c'est quelque chose boo xam ne bu ñu war a rectifier la ah ñun am avantage avantage gisuñu ko fii mënuñu ko fay gis parce que euh, décision du jóge ci ñu dara du jóge ci ñu lu dul chef yi ñoom ñooy wax rek nañu acca dekk leen te ñi nga xam ne ni yow yaa gën a xam kii li mu def moom mu commandé la mu yaa ko gën a xam liggéey bi alors su fekkente ni yow moom moo lay amuloo benn décision donc kon euh, ça devient zéro loolu moom mooy suñu problème mooy problème administration pénitentiaire aywa Marcel administration pénitentiaire jóge intérieur dem euh, justice 17 euh, janvier 1998. 17 janvier 1998 ñuy fàttali que c'était quand même deux ans après euh, mutinerie bu amoon ca prison bu bu Rebeuss en 1996 donc il était nécessaire que ñu li nga xamante ne moom mooy système boobu noonu administration pénitentiaire nga xamante ne non seulement ñoom ñooy euh, yóbbu nit yi ci kaso après décision de la de la justice waaye tamit ñoom ñooy occupé wu li nga xamante ne moom mooy garde ak euh, entretien nit yi ñuy placé wala di leen di euh, maintenir en en détention gannaaw ba ñu leen di ba ñu jëlee décision privé leen privé leen liberté ñuy fàttali que dafa rattaché au ministère de l'intérieur depuis 1971 année ba ñu koy créé donc administration pénitentiaire et que avant cela mhm. surveillance prison yi euh, ñi nga xamante ñoom ñooy garde républicaine ñoom ñoo ko doon euh, def mu newoon benn corps euh, boo xamante statut militaire dépendant du ministère de l'intérieur la woon mm. donc bu nga xamante ne dissoudre en avec le versement de ses effectifs ca sûreté nationale bi nga xamante dafa assurer kon le relais mm. jusqu'en merci beaucoup Marcel Farba Maroun mu nekkoon un jour au Sénégal un jour dans le monde et puis ñu jaajëfal encore une fois gàttal ak Ibou Diouf